أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من أرسل رحمة للعالمين بصيرا ونذيرا ودائيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا إخوة الإيمان السلام عليكم wa rahmatullahi wa barakatu ginnaaw bu nu tàmbalee ci turu yàlla tabaraka wa taala noo ngi ñaanal sunu yenentu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yal na ko yàlla dolli xéewal te musal ko ginnaaw loolu ñoo ngi àndaat ak yéen ci sunu dars siira xam ngeen ne ñoo ngi tolloon dimanche passé ci lettre bi yonent bi alayhi salaatu wasalaam bindoon buur boobu tudd Qaysar waaye tey li nu bëgg a jël dars mooy lettre boobu ba mu yegsee ci buur boobu tudd Qaysar ana lan mooy taxawaayu buur bi ci jot lettre bu jógee ci yonent yàlla Muhammad عليه الصلاة والسلام ولما وصل هذا الكتاب إلى قيصر من اللاتر بمو يجيكي بوربو تدو قيصر قال moom buur bi dafa taxaw ci péncam mu ne xoolal leen nu kenn ci sunu biir réew wala li ko jege kenn koo xam ne jege na waa ji nga xam ne lettre bi ci moom la bàyyeekoo mu ne ay garde corps am wala ñi yor sécurité buur bi tasaaroo ci biir dëkk bi ndeke ci jamono yooyu xam ngeen ne am na kenn ci entourage yonent bi alayhi salaatu wasalaam wala ci mbokk gu jege ku tudd Abu Sufyan ibnu Harb ibnu Harb Abu Sufyan moomu fekk jamono jooju fekk na ko ca Saam mu ànd ak waa Quraysh ci benn commerce nee na ba ndaw Kaysar duggee ca marché ba di laaj ana kan ci nit ñi moo fi gën a jege waa jooju nekk ca Makka di woote yonant fii ci biir marché bi ana kan moo ko fa gina moo ko fi gën a jege amee na dagg na de loolu bi mu amee Abu Sufyaan ne leen man la ah ñu ne ko buur bi moo la soxla Qaysar ñu daal di koy jël indi ko ci biir palais bi ba mu ñëwee mu taxaw ñu utal buur bi kuy traduire làkku arab ak làkk buur bi ndax ñu mën a déggante ñoom ñaar ah buur bi laaj na daal day wax ak kii traduire ne ko laaj ko salhum ayuhum aqrabu nasaban min hadha rajul ñoom ñi taxaw sama kanam laaj leen ana kan ci ñoom moo gën a jege waa joojule allazi yazamu annahu nabi waa jooju nekk Makka te naan ab yonent la yéen ñi taxaw sama kanam ana kan ci yéen yéen a ko jege fa qaala abu sufyan ana ajoji tudd abu sufyan ne ko man la li annahu lam yakun fi rakbi min bani abdil manaf gayruhu ndax caravane bi nga xam ne ñoo jóge woon màkka ñëw saam ci jamono yooyu amu ci kenn koo xam ne jege na yonent bi alayhi salaatu wassalaam kudul abu sufiyaan moo tax mu ne ko man maa ko ci gën a jege fa qaala qaysar udunu minni qaysar ne ko comme nag yow yaay ki nga xam ne yaa gën a jege yonent bi ci famem tey ci ñi nga àndal kon jege si ma su maamara bi ashaabihi fa jaalu xalfa zahrihi mu ne garde yi nekk leen sama ginnaaw garde yi daal di reculer ne ci ginnaawam moom buur bi mu jàkkaarloog abu sufyan abu sufyan jege siku mu ne kii traduire laajal ma waaji li tax ma ni waaji na nekk ci kanam mooy dama ko bëgg a laaj laaj boo xam ne man maa koy laajal sama bopp muy tontu ci waa jooju nekk màkk di wax ne moom yonent la mu ne loolu moo tax ma ni nekk leen sama ginnaaw moom na nekk sama kanam ngir ma mën a jàkkaarloog moom dara duñu dox sama digganteeg moom ah ba ñëpp demee mu daal di koy laaj nee na bi loolu amee laaj bu mu ko njëkk a laaj moom kaysar mooy kayfa nasabu hazar rajul mu ne ko dama bëgg nga wax ma waajooju askanam comme yow ci ñu ko gën a jege askan nga bokk kon wax ma tuuti ci askanam fa qaala huwa fiina zu nasab abu sufyaan ne ko ah kooku ngay laaj day bu dee moom dong ngay laaj ay mbiram ci ñun sunu xeet borom ci borom askan wu rëy wu màgg la bokk wa fii na zu nasab ca dëgg-dëgg day bu dee ci ñun kese borom askan la wu rëy rëy rëy buur bi daal di laaj ñaareelu laajam hal takallama bi hadha al qawlu ahadun minkum qablahu ndax seen famille seen xeet yéen ñii di arab am na ku mës a wax wax ji muy wax moom am na ku fa mës a woote woote bi mu indi qaala laa abu sufyaan ne ko déedéet bu dee dañuy waxal yàlla daal dëgg dëgg dëgg moom kenn kot moo fa mës a wax lii muy wax amul kenn ku ko ko fa njëkk a wax kon buur bi laaj na ñaari laaj tontu nañ ko ñaari tontu laaj na ci askan bi tontu nañ ko laaj na ndax am na ku ko jëkk a woote lii muy wax mu ne ko déedéet ñetteelu laaj moo ne ko hal kuntum tattahimuunahu bilkadibi qabla an yaquula ma qaala waaw ndax yéen doon ngeen nemmeeku ci waxam ay fen balaa lii di xew ndax doon ngeen ko ko tuumaal di sikki sàkka ci ay mbiram ne dana fen wala du fen ndax loolu mës na am qaala abu sufyaan la abu sufyaan ne ko déedéet ca dëgg dëgg dëgg bu dee dañ doon seet ku wóor moom la bu dee dañ doon seet ku gën a dëggu ci sunu xeet moom la musu ñoo nemmeeku ci ay waxam ay duggam ak ay génnam caaxaan wala ay fen musu cee am musu ñu koo tuumaal ay fen musu ñu koo gisee musu ñu koo dégg ci moom ba moo doon ñetteelu laaj qaala fa hal kaana min abaihi min malik waaw sama ñeenteelu laaj Abu Sufyaan mooy ndax kii ay maamam wala ay baayam am na ku ci nekk ku sa musa nekk buur qaala Abu Sufyaan la Abu Sufyaan ne ko déedéet ay maamam yëpp di ay sang lañ ay kilifa lañ ñëpp a leen wekk ñëpp a leen ormal waaye kenn nag mus cee nekk buur waaye ñëpp ay sang lañ nag ndax ñooy jox nit ñi bu ñu xiifee ñu lekk ñoo leen di jox ñu naan ñooy rey seeni gëléem di teral nit ñi di leen berndeel waaye nag di ay maamam kenn mus cee nekk buur waaye ñu tedd lañ waa buur bi daal di laajaat mu ne ko waaw bi mu tàmbalee di wooteeg léegi ñan ñoo ko topp qaala fa asraafu nnaasi yattabicuunahu am du'afaa'uhum mu ne ko bi mu tàmbalee wooteeg léegi sang yee ko topp wala ñu néew doole ñee ko topp qaala bal du'afaa'uhum abu sufyaan ne buur ba waa ji naan yonent la daal ba mu tàmbalee wooteeg léegi ñeneew doole ca dëkk ba doo nga ko topp ngand yeeg ponkal yeeg borom alal yeeg borom taraanga yi kenn wuy siwul ñi néew doole doo nga ko topp qaala fa hal yaziduuna am yanqusuun mu ne ko waaw ñoom dañuy bëri bis mu nekk wala dañuy wàññeeku qaala abu sufyaan bal yazidun sufyaan ne ko buur bi bu dee wax dëgg dong aa saa yu ñu xëyee dañuy yokk de ñoom ñooñu di ko wuy si nekk ñu ñëw dee la saa yu ñu xëyee dañuy yokk wàññeekuñ de allahu akbar qaala fa hal yartaddu ahadun minhum saxtatan li diinihi waa ñooñu di ko topp ndax kenn mën nañ ko cee tiital wala ñu duma ko wala ñu dóor ko wala mu jékki-jékki rek daal di génn ci diine yi mu ne ko déedéet xoola la déedéet ñooñu koy wax dëgg yàlla lu ne la leen waa dëkk bi won dañ leen di wol ba nu nooy dóor ba ñu mokk ñi ñu lakk waaye kenn ci ñoom du murtat tey lañu ne kenn gën a dëgër allahu akbar mbokk yi xool leen laaj yi buur bi laaj ak abu sufiyaan tontu yi mu koy tontu te li gi yéeme mooy abu sufiyaan jamono yi nekk gul jullit ab yéeféer la nekk gul jullit waaye xoolal ab yéeféer tey taxaw na ci kanamu buur di wax dëgg ci làmmiñam ndax dëgg dong lañ xamal yonent bi alayhi salaatu wasalaam loolu la ñuy jàng naan alxaqu ma shahidahu l aada dëgg-dëgg mooy li noon yi seede booy war dëgg ba fekk noon buy seede nag di wax lu lu baax nga xam ne kooku lu muy nekk noon noon yépp waaye du ko teree wax dëgg qaala hal yaxdiru iza ahada qaala la mu ne ko waa ndax moom su waxeeg dara nit dara da koy war wala du ko war ku mu waxal dina dalay respecté lim la waxal wala dalay war bu sufiyaan ne ko mustawar qaala la mustawar du war mukk wa nahnu al'aana fi zimma la nadri ma huwa fa'ilun fiha da ko instant bi may wax ak yow sax de ñun dañoo nekk ak moom benn pacte xamaguñ lu ciy xew pour walla ne moom du war ndax mustawar mustawar yee féer waxuma laa jullit sallallahu alayhi wa sallam qaala fa kayfa xarbukum wa xarbuhu mu ne ko ndax seen xeex yéen ak moom ndax mës ngeen xeex ak moom wala xeexu leen ak moom est-ce que mës ngeen xeex ak moom wala mës leen xeex ak moom ala naam mës nañoo xeex de ñun waa màkk mës nañoo tokk waa Madina takku ñu xeex mu ne waa xeex boobu nu mu demee woon qaala alxarbu baynana wa baynahu sijaal marra lana wa marra alayna ah dëgg yàlla xeex nañ ñu nag moom de waaye xeexu njàmbaar de daa taxaw nu taxaw ñu gañe ko mu gañe ñu waaye moo nu njëkk a gañe nag ndax moo ñu dóor ca Badr rey sunu kilifa yëpp waaye ñun ñaareel bi yoon wi ñun tamit ca Uhud ñu gañe ko kon gis ngeen li Abu Sufyaan taxaw di wax yëpp wallahi léppay dëgg amul leen lu mu nëbb a buur ba koy laaj laajal boppam muy tontu moom Abu Sufyaan mu ne ko waa moom fii may amurukum moom lu mu leen di digal yéen na ngeen ko def yaqulu nee na ibudu llaha wahdahu wala tushrik bihi shay'a ah moom de daa taxaw ci sunu kaw rek ne ñu jaamu leen yàlla kenn bu leen ko bokkaale moom dong rek la ñuy def wa yanha amma kaana yabudu abaana mu nuy tere lu sunu bàyyi doon jaamu te mooy ëkk yi xërëm yi wa yaamuru bisalaati wassidqi wal afaaf wal wafa bil ahd wa adaa'ul amaana bu dee wax dëgg lamu nu digal daal mooy nanu jaamu yàlla bàyyi bokkaale yàlla kenn ak lenn nañ ko wéetal moom dong buñ ko dendaleeg lenn wala kenn mu nuy tere la sunu maam ya doon jaamu ci ay gàllaaci ki xërëm ay petaawa ki kuura ki ay xaawa ki ay xàmbak ay laarak luurak sangoo deret ak jaamu bàmmeel ak raay fotoog yooyu de la ñuy tere yooyu nag la sunu bàyyi doon def moom nag mu ñëw ne nanu bàyyi yooyu loolu baaxul bokk na ci lam ñuy digal nee nañu nanu julli nanu dëggu nanu fegu nanu respecté sunu kàddu sunuy dig kóllëre nañ ko sàmm fa qaala almalik inni saaltuka an nasabihi fa zaamta annahu fiikum zu nasab allahu akbar bul ne abu sufyaan man de maa la laajal sama bopp yónni ma kenn maa la laaj aw askanam nga dëggu ci ne ku tedd la wa kazalika rusul tubaas fi nasabi qawmiha maa ngi lay yëgal ne man li ma jàng ci histoire man buur bi yonent bu yàlla ma si yónni yëpp ci askanam la koy tànn yónni ko yonent boo gis rek ci as aw askanam la yàlla di tànn kenn ku baax daal di koy yónni kon loolu nga wax moom moo am wa saaltuka delluwaat laaj la fa hal qaala ahadun minkum hadha al qawlu qabla ndax am na kenn ku wax wax jee mu wax fa zaamta an laa nga ni déedéet kenn mësta wax loolu falaw kaana ahadun qaala hada alqawlu qablahu la qallat rajulun la qultu rajulun yathimu bi qawlin qabla qablihi mu ne bu fekkoon ne am na kenn ku mës a wax wax gii muy wax ne am na keneen ku mësoon wax lii mu wax kon danaa ne seen waa jii de yi day toppandoo rek waaye comme yow yaa ne ma ba ma ba mu ñëwee di wax kenn mësta wax lii yaa ko fi wax kon toppandoowul kon la mu wax dëgg la kon ci lettre bi buur bi di laaj Abu Sufyaan Abu Sufyaan di tontu incha allah dars yi di ñëwaat moom la ni yeggali ñu ñaan buur yàlla tabaraka wa taala mu def ñun dégg ak topp asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.